de mbokk yi maa ngi leen di gërëm di am mbégte ci jàkkaarloo bi may jàkkaarloo waat ak yéen ñi jiite réew mi tële puusuñu paasuñu ñu leen di xaar booba ak léegi tey jii dañu dajale lenn ci gor yi ci dëkk bi ne dañu leen di wax ana fu ñu war a jëme réew mi juróom-ñaari weer ñu koy xaar juróom-ñaari weer waa jiy daw di teggi juróom-ñaari weer muy dugg ci tunnel yi juróom-ñaari weer muy waaf nanguwul def déclaration de politique générale tey jii lañu gaaral ca jam ñaajo nee ñu mooy projet bi projet boo xam ne dañu ko jënd te ka ñëw di ko présenter ab expert privé la expert privé boobu ci fàttali rek moo doon expert bi doon xalamal Macky Sall ci PSE bi mu xalamalee Macky Sall ba mu jëli jàjjam sëriñam baax na tey jii gàddu na Sonko ak Diomaye moom Victor Ndiaye li am solo mooy bisu tey bi ku ne xam na ne daanaka campagne électorale la parce que la xewoon foofu ca jam ñaajo ku ne xam na ne du vision waaye ab mascarade la woon daanaka ab xumbeel gu ñu organiser waaye yéen biir na leen ni plan buy soqali réew plan buy defar réew dee su ko roccee ci ay tiroiru cabinet dégg nañu ko sax muy junj di wax waxu Japon waaye ku ne xam na ne Japon ay nit ñu xam fa ñu jëm ay nit ñu gëm seen bopp xalaat bu ñu àndandoo maase xalaat bu ñépp joxe seen bopp moom moo tëgg tey jii

du plan mécanicien du plan ou marchand ambulant ou du plan ou menuisier le plan ñu garal plan dañu ko te ne ñi ci plan Macky Sall lañu ko copier muy plan Sénégal émergent dem nañu sax ba ci nañu ko patch ci juróomi at ci fukki at comme ay mbabba daara lañu jéemuñu ko soppar ñi sax noonu lañ ko ca bàyyee pour wane degré de nullardise bi nga xam ne moo nekk ci ñu li wóor mooy laaj bi sénégalais yépp di laaj xam ngeen ne moo taxoon ñu yóbbu ma ci alkaati yi chiffre ya ñu ma doon laaj moom laa dellu di laajte waaw li ñu ñu présenté tey fan lañu sukkandiku bëgg naa xam ndax ci chiffre ya ñu falsifié woon te génnagul foofu lañu sukkandiku walla chiffre ya nga xam ne mom lañu yagg falsifier a ñoy ci chiffre yoy la ñu sukkandiku la question elle est extrêmement importante et war nañ ñu ci tont chiffre yi ñu basé wu pour jox ñu projet Sénégal 2050 ndax ci chiffre yi Cour des comptes génneegul la ko tippe wala ndax ci chiffre yi Ousmane Sonko doon wax né données yi ñu njublang la ca données yooyu lañu ñu yaakaar naa ne duñ ñu ci gaaw a tontu mais li wóor rek mooy li ñu ñu jox tey ji ay kàddu la di kaddu làmbaatu kaddug ñu tële kaddug ñu amul vision kaddug ñoo xam ne juróom-ñett fukki sénégalais ak juróom-benn di ay jeunes sénégalais seen bakkan daanu na ci toolu xale bi ñu nekk ay martyrs lan moo taxoon ñu doon dugal seen pas-pas lan moo taxoon xale yooyu engagé wu nekk ci mbedd mi di xeex ba seen bakkan rot dañu leen digoon ne dafa am projet waaye tey jii biir na sénégalais yépp ne projet Bob ñu doon wax musul am projet bobu ñu doon wax musuñu ko bind ñenti junni cadre yi ñu doon wax ne ñoy bind projet bi Yalla xam na ne France dalu musna len Nous ne waxi Ousmane Sonko jarul sa do sénégalais projet bi nous sénégalais yi vision Sénégal 2050 cabinet privé nous moko la preuve consultant privé présente présenté au Sénégalais yi kay werante mais pour wane ne Ousmane Sonko amul pour une ne Ousmane Sonko day faites un projet. Vous ne Vous un projet vous vous financer. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on peut financer Qui Je vais vous dire ce qui document, on a parlé de stratégie nationale pour l'année 2025 à 2029. 18 000 milliards. Il faut que ce milliards à des nous xam ne dañ ko war a lebi nous ñi doon jooy leb tey jii champion leb ñoom ñi doon wax ne réew mi dañu ko Ousmane Sonko son président délégué auprès du premier sinistre ñoo dàq leb Ismaïla Yassine kon ci 18 milliards 6 000 milliards dañu ko que le secteur privé national n'est ñoy mais yeen ñi bir na société yi ñu privé national duñu ay société nationale parce que bari na ci yo xamné ay nit ñu nekk bitim réew ñoko kon engagement ngeen ci téeméeri sénégalais yoo jël soixante-dix yi juróom-ñaar fukk yi ñu ngi yëngatu diggante mbay càmm ak nap xanaa kon looloo yor réew mi ci biir plan boobu ñu présenté sénégalais yi ñu ne ci dix-huit mil milliards ya ñu war a leb diggante deux mille vingt-cinq deux mille vingt-neuf dix pour cent la ñuy jagleel le secteur primaire mooy mbay sàmm akub napp dem naa sax ci biir calcul yi maanaam booy xool day nekk région bu nekk 42 milliards lañ fay def ci pàcc bu nekk ci ñetti at yay ñëw kon ngeen xam ne véritablement ñi ñu jàkkaar lool ay cuune luñ dem naa sax ba gis ñu wax ay pôles territoriaux yéen ku ne ci yéen ñi xam na ne le programme TEC novembre 2023 nous avons programme TEC ko ak ay pour les gens ñuy wax programme parce que sommes comme dañuy randal rek pour territoriaux ont 8 pôles yi document le mais comme Sénégal moo ñu tax a jóg may nañu leen ko yi dana gëna metti parce que dafa melni ci mbaxalu xéer lañu jëm fi mu nekk Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye dégg ngeen ko ci biir présentation bi nee nañu on va

mooy diwliñ bi day yokk kon yéen sénégalais yi bu yoboo ngeen préparé wax nañu leen ko waxoon na ko le 26 nee na yëf yi dana gën a metti tey jii ci biir seen programme bi ñuy présenté wax nañu leen ne dañuy dem vers des subventions ciblées subventions ciblées méngoo ak li FMI bëgg FMI la mu bëgg mooy ñu rocci subvention yi maanaam woyofal bi day gën a yokk remarqué ngeen ko sax waaye dafa am leneen lu ñu ci yokk ndox mi je vous donne l'information que day yokk parce que ci journal bu ñuy wax l'enquête su ma juumut le 5 octobre bii ñu passé Maguette Niang mi jiite kërug ndox bi dafa ne njëg yi ci ndox bi danañu ko yokk te wax dafa ne les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau kon ku doon laccé fali yi ngoyo ngoog jàpp leen ne vision bi ni ñu leen ko servir hors d'œuvre bi moy hausse du prix de l'électricité mais également hausse yokkute bi nga xam ne def nañ ko ci njëgu ndox bi ngeen xamee ko noonu ci juróomi at yi di ñëw loolu nag mën nañu ko rectifier parce que ñii fi nekk seen poos yéen la ñu yërëmul màggatum lëndëm ku ko dajut day daj boppam boroom kër buy toltolaan ku ko yërëmul day yërëm boppam gouvernement bu la yokkal ceeb yokal la diwling yokal la courant yokal la ndox da la bëgg ray rey len et le 17 novembre ngén tan coalition sam sa kàddu ay jeunes yu am yéene ci réew mi ay nit ñu am parcours ay nit ñu làmbaatuwul ñoo fa nek bëgg soppar ñi xar kanamu Sénégal indi gouvernement bu bees daggkatu juuti yi nga qui ñu ngi yalla tegul kenn lu mu mënul nañ fi dañ ñu document bilan euh, Sénégal 2050 ñu né le 2025 lay commencé plan bi 2025 lay commencé Wa ñetti ñiy toltalaat ñoom nu ñuy def waaw ñetti weer yii di ñëw économie bi nga xam ne suux na nu ñuy def ñetti weer yii di ñëw marché yi nga xam ne amatul nit ñuy jënd nu ñuy def ñetti weer yii di ñëw naka la ñuy def pour dundal suñu njaboot ñetti weer yii di ñëw naka la ñuy def pour jënd fourniture gone yi parce que am na ba tey ay élèves yu jàngiwul ndax seeni waa kër seeni way wayjur amuñu lu ñu leen inscrire lan la ñuy def pour loolu lañu def tey jii jam ñaajo mooy li may wax tout le temps dañu doon wax ne ñi fi nekkoon dañu doon nguuru di mos ak di mosale waaye tey jii ñi doon mos ñoo fi jóge lañu doon mos ba tey mi ngi fi ñu bees ñi ñoom ñooy mos xaayaan ku dégg séeréer li ñu ñu wax wax nañ ñu lépp sauf wax ñu naka la relancer économie bu Sénégal tey jii yéen ñi teew fii ñëpp ku ci ne xam na sénégalais yi sonn nañ yéen ñi teew fii ñëpp ku ci nekk xam na borom kër yi jaaxle nañ yéen ñi teew fii ñëpp ku ci ne na ko ne mu dara lu dul ay gaa yuy làmbaatu ay gaa yoo xam ne tële nañu ay gaa yoo xam ne nanguwuñu ne puusuñu paasuñu parce que nag vision bi ñu def vision bi ñu duppee Sénégal deux mille cinquante ci bor lañu ko wéer ci bor lañu ko nar a dundale ci bor lañu ko nar jëfe te yéen ñii ca seen poste lañu ko yaakaar moom Bassirou Diomaye Faye

ci fay bor la jëm manam sul bukki sulli bukki niñ koy ci la vie courante malheureusement non loko Ousmane Sonko di défé ak warta bet kenn en tout cas man bettu koy wax du et ñi encore une fois amuñu lenn ci xam-xam damay ci su may waxtaan ma ne leen dafa dañu mel ni ay maanaam baaxooñ baaxooñ mooy vautour xam nga vautour medd lay dunde dañuy fekk ay entrepreneur yu liggéey ba créer richesse am dara ñu ñëw coppet ca loolu la ñuy dunde kon ma waxoon ko bantuwaat ko amuñu vision amuñu xalaat bu ñu yore Sénégal et document vision Sénégal 2050 Nous ñu présenté consultant bu nekk ci cabinet privé ànd présentation bi mu ne ay document dem copier coller ci nandite indi xam-xam rocci mais non, nous ne sommes pas là. c'est juste pour vous informer c'est un degré ci nous télé ak wàllu mbabba Vous dégg ngeen Nous saa su ne ñu là Sénégal dañu war a bonne gouvernance Une bonne gouvernance pour nous, ñi rek la mais une bonne gouvernance pour ko nous ci seen bonne gouvernance mën naa weesu coow li am ASER waaw wax leen ma yéen ndax bonne gouvernance mun naa weesu coow li am ONAS te tey jii directeur général ba ñu dàq dem di jàkkaarloog enquêteurs yi parce que nee na ministre am moo ne ko bàyyil marché bi nga joxe jox ko ñeneen ñaari entreprise ci entente directe maanaam déggoo gi yaa ma neex mbirum ASER moom dégg naa leen ama comme dañu mën a fen ñu naan wuy affaire Azer ci jamonoy Macky Sall lañ ko def man nee naa leen ñoom ak Macky bon la ak yées mooy sama gëm-gëm man coowu Azer dafa am solo ñu taxaw ci parce que coowu Azer banque bi nga xamné daf ci doon sénégalais ak ay Espagnols. ce qu'il faut rappeler que le directeur général Bob ñu fa naka Jean Michel Michel sen nga xamné ne mësta liggéey dara premier poste am DG la Sénégal rek la premier poste ce premier bulletin de salaire DG et y en a beaucoup hein. oui non parce que amuñu ressources des ressources. ay borom xam capital humain xam man capital humain parce que yefi PSE la te ñom sax dégg na leen ñu projet bi di capital humain alors directeur bu bess bobu jaar sénégalais dem signé ji espagnol si nous avons le projet bi ci Macky mais avons avons le projet 37 milliards banque banque Santander dafa bi ARCOP di suspendre marché bi banque Santander daf ko 37 milliards yi ma joxe gisatuma bi Khalis bi 37 milliards comme waa il faut que day jubale ko mais Ousmane Sonko nous wax 37 milliards au Sénégal Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal nous avons fu 37 milliards yi nga banque Santander mu laaj nga Ousmane Sonko wax ci bonne gouvernance soxla nañ ko xam et comme si cela ne suffisait pas ci fin wu semaine bële passé dañ doon wax ne dañuy xeex toog muy dox ci musiba lañ jëmam ñoom léegi nag jaaxaan muy dox sax am ah non chargé de mission mus xam lan chargé de mission ku xam mission chargé de mission parce que ay jeunes lañu yu doon engagement politique ci parti PASTEF ñu ñi doon ñu ñi doon ñi léegi saga day dox légui xaste day fay ñu defal len danaka lu upp ñen fukki contrat ci biir présidence de la république defal len ay chargé de mission nga xamné ne salaire nek na diggante 500000 cent jëm kaw ci ño xamné amuñu bureau parce que ñom ñep kenn du la jox bureau bir présidence de la république amuñu bureau mais ca wetu loolu moom Ousmane Sonko dafa dem créer gouvernement parallèle bir primature dafa dem recruter 21 conseils, ñom ñep ku ci nek ñu lay fay million ak lu top weer wu dee bu nek ngir nga nek conseiller ci wetu Ousmane Sonko muy un gouvernement parallèle lolu moy djub né ñoy djubal ak djubanti sénégalais yi ku nekk ci dana exactement lan moy taxaway bi nga xamne mom lañu la doon xaar mais li c'est moy le 17 novembre inshallah allah bu bon bi Sénégal jël yoon bobu mën nañu sauver Sénégal mën nañu rectifier la trajectoire bi Sénégal c'est de voter massivement pour l'opposition. C'est de voter pour la coalition Sàmm Sa Kàddu yow mi toog sa kër mu jafé lol. yow mi daan bëggal say dom te mënatoo ko yow mi bëgg jënd fourniture mënatoo ko commerçant bi nek ci marché bi te yëf yi jafé ci mom. Tak leen sen dik. Fexé leen inshallah le 17 novembre prochain ñu voter massivement la coalition sàmm sa kàddu ngir ñu mën a fexe lii fi ne ñu jële ko fi parce que nag Sénégal dafa tàbbi ci ay loxo yoo xam ne amuñu xam-xam tàbbi ci ay loxo yoo xam ne amuñu mën-mën incompétent waaye tàbbi ci ay loxo yoo xam ne duñu xalaat parce que ñàkk xalaat moo tax moom Ousmane Sonko jàkkaarlook àdduna te naan leen chiffres yi ñuy jëfandikoo ci suñu réew ay chiffres yu ñu falsifié la xam nga sama maam dafa dafa daan wax naan bu ñu noppee rek dañu goudronné dex waaye yaakaar naa ne moom it bu noppee rek dañoo goudronné géej gi li wóor mooy premier ministre Ousmane Sonko mi nga xam ne daw na déclaration de politique général moom mi nga xam ne wane na ne am na yéene bëgg na mais malheureusement mënul moom mi nga xam ne mi ngi jéem nañ ko ko nangul waaye amul xam-xam Ousmane Sonko moomu la ñuy jàkkaar lool di wax moom ne ko rëcc na ci déclaration de politique général ànd ci ak président de la république am boo xam ne amul kaddu woyof na signature ñu àndandoo ñoom ñaar di yëngi-yëngi xëcc sénégalais yi yóbbu leen ci gutta moom Ousmane Sonko moomu ak président bi ñu ko tofal nañu xam ne rëcc nañu ci assemblée nationale bee passé waye askan wi ñu ngi leen di xaar ngir rëq seen digg ngir jafe-jafe yi ñu teg réew mi sénégalais yi mën koo teggil seen bopp incha allah ce sera à partir du 17 novembre votez massivement kon ni ngeen ko gisee wax naa ko léegi c'est des mains inexpertes des incompétents des mains irréfléchis ñoom ñoo yore réew mi Li baisse des recettes la un document la ngir kenn bañ fi ñew wax ma ay waxu chiffre li seen ay chiffre la comme nawet bi du seen nawet ca Touba waye chiffre yi seen chiffre ma ci profito di len wax ne dex gi dans la zone nord nit ñi sonn nañu diggante Bakel Diawara Mudéeri Dembankaane euh, yeggut Kidira euh, Waoundé euh, Balu Bélé Koungani ak dëkk ya ko wër yëpp géej gi dafa génn yegg ci dekuway nit ñi son nañu lool may fàttali ne direction de la protection civile Le général bu nga xamné moy général bi fété Pastef légui moy ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine la ci waxal parce que direction de la protection civile dañu am 50 milliards à peu près yo xamné un budget lan lañuy xaar pour déclencher plan Orsec lan lañuy xaar pour dem taxawuji ji askan woowu nek ca Bakel askan wa nek ca Mudéri askan wa nekk parce que nit ñi sonn nañu ca belé ca Balu ca vraiment ils sont fatigués may fateli rek ne ci baisse recettes ci premier semestre xol deuxième trimestre 2023. Au deuxième trimestre 2024 800 milliards danaka ñak nañu ko ci 800 milliards yoyu xaliss bi doon ci 2023 21 milliards la waye bi ñu ñëwé ak seen jikko yu entrepreneur 2024 11 milliards manam loolu boko mengale nak ak khalis bi nga xamne dañ ko doon yobbu té muy impôt sur le commerce extérieur ak transaction dem jëndi Dubaï dem jëndi Chine dem jëndi feneen ak feneen ak feneen ñew fay 2023 206 milliards la won waye xol leen 2024 112 milliards kon nga xamne fimu nek ni ñi yoré ñii réew mi dañoo teulé man Bougane nama len ko don waxe ci jamonoy Macky Sall non la len koy fàttalee du wax lu nit di wetti parce que limay que wax seeni këyiti bop la 8800 milliards yi ma leen doon wax ci walu c'est validé en conseil des ministres le 12 juin 2024 Basirou Diomaye Faye moo validé document regardez c'est 8 800 milliards 6400 milliards yi yëpp ci walu dette la jëm day fay bor waaw léegi nak ñun sénégalais yi duñu dé dee waaw nu ñu def ak ciép nu ñu def ak diwlin nu ñu def ak euh euh, euh petit pois nu ñu def ak namé nu ñu def ak jumtukaay yi nga xam ne saa su ne dañ ko soxla c'est important parce que sénégalais yi loolu la ñuy dunde waaye léegi bu fekkee ne sénégalais yi li ñuy dunde yokkal nañ leen ko bu fekkee ne sénégalais yi li ñuy dundee njëg li mais comment les gens vont faire pour vivre mais ça, bu deful dara mënta taxaw nit ñi pour ñu liggéey xaalis il faut ñu am lu ñu dunde nit ñi pour ñu liggéey xaalis il faut au moins ñu am loo ramener non noonu la ñuy et là, li tax ma koy wax ñëw naa ci sama benn conférence ani Soda moom léegi star la ma ne leen nenu baxal cent cinquante lay jar mais non waa léegi xool leen xool leen tableau bi tableau bi dañ la wan ne Sénégal moo gën a cher dund ci Afrique xool leen tableau baa ngi Sénégal moo gën a cher dund ci Afrique nee naa leen man du ma wax lu ñuy weddi moom kay dangay ñàkk xam-xam di kaañoo la ma wax mais la wax doo ko wet kenn du wetti li e bo et fi indice du coût de la vie xool len Sénégal pouvoir d'achat local xool len Sénégal 46 pour len xool leen ca topp waaw ngeen ni li dund la nga and ak ay nit ñoo xam wër nañu réew mi fenn fenn fenn fenn fenn ba ñu jox leen réew yaakaar ne mën nañoo continuer di fen di fessel biir yi c'est pas possible et tay jii li xew tay vidéo yi gennel mako c'est juste pour montrer à quel point lañuy fonto Sénégalais yi nee len Victor Ndiaye bu cabinet performance la vidéo bi ngeen xol Victor Ndiaye Souleymane Diallo aujourd'hui Victor Ndiaye wax exactement à mi-chemin de 2035. Victor et pendant ce premier cycle de l'émergence on l'a vu vous avez bâti les fondements et c'est important à, à l'heure du bilan de le dire aux Sénégalais le gros œuvre de l'émergence est aujourd'hui en place et ce gros œuvre c'est la partie la plus difficile comme toute impulsion c'est la partie la plus coûteuse en investissement public et c'est la partie la plus ingrate parce que le gros œuvre, personne ne peut y habiter. Et grâce à votre bilan, notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. E en effet, l'émergence économique, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. Ok. Wadi Warni qui nous présente présente tay projet Sonko 2050 Vous même waji nous ñu présenté projet Sénégal horizon 2050 qui ma ñew ki ci top Vous amna ko xamné Souleymane Diallo Souleymane Diallo mi mais ci biir haut fonctionnaire yoy la bok Souleymane Diallo mi ci haut fonctionnaire yi doon liggéey ci administration bi boobaak léegi la bok ana mam Thierno Ndiaye mam Thierno cham depuis 2014 moy directeur de la planification PSE PAP 3 li ñuy wax PAP 3 yéen xam ngeen ko dem ngeen ci conférence yu bari manam ñetti mousquetaires yi

ñu ñëw dara dar Ousmane ko ak Diomaye ne ñooy dañuy présenter le projet waaye nag ku amul yaay namp maam comme projet amul te boobaak léegi ñu ngi ñuy dig projet at mu ne weer wu nekk ñu ne ñu tel jour projet bi dana génn ah ku indi projet bu leen ko bu leen ko dóoree rek gars yi gars yi gars yi gars yi présenté ñu ko et li ci gën a graw Vous avez entendu le Premier ministre Ousmane Sonko ce document il est provisoire Le na document bi, ñu leen présenté pareil. waa mais ñii ku ñu yab waa mais Ousmane Sonko ku mu yab sénégalais yi Ousmane Sonko yab leen mais yéen sénégalais pourquoi Ousmane Sonko nawloowu leen mais yéen sénégalais pourquoi Ousmane Sonko lu mu teg

Des gnalènes, des tout cancer, des cancers, des tout le diabète. Mais, insuffisance rénale, qu'est-ce que tu On a près de 2 millions de Sénégalais qui souffrent d'insuffisance insuffisance rénale. Tu as près de 2 millions de Sénégalais qui ont 25 centres, les gens qui ont été ils ont garde des pèlerins. Ils ont été faits, ils nous nañu leen fay nous nañu fay ce sa xol day jeex et pourtant une unité pour le traitement dialyse unité pour 30 postes la koy financée 150 millions c'est juste pour dire que nous, ñu jiite ci seen mbiri bop la nek c'est juste pour dire que nous ñu dit, li ñu ñu présenté Taïdi, nous ku nekk xam du plan pour soqali maçon bi du plan pour sortir soudeur métallique bi du plan pour sortir mécanicien du plan pour soqali baykat bi le plan la bas c'est une planification centralisée ay borom costume ak cravate ñoo dajaloo ci bureau jàpp ni nii la ñuy Sénégal mang koy wax ci Walu fruit dégg naa ñuy wax waxu industrie pharmaceutique c'est bien c'est quand même une enveloppe de 95 milliards bo xamné Sénégal mën nako récupérer et pourtant xam-xam baa fi et pourtant yon baa fi mais and ak ay nit ñu ciuné dégg naa leen ñuy wax né Al Amin Lo sax la dégg et fofu and na ak mom parce que dafa bokk ci suma programme dama né réew mi buñu ñu leen bëggee dimbali il faut ñu jaare ko ci les institutions de microfinance décentralisées les IMF et les SFD parce que xaalis war nañ ko mëna a fofu ñom ño xam li nit ñi dund ñom ño dëkk ak nit ñi kon bu nit ñi amé jafé jafé ci ñom lañu wara dem mais kan moy financer suñu économie Sénégal suñu système bancaire banque yi ci Sénégal dans 80% des banques au Sénégal sont étranger est-ce que les banques étrangères ay étranger réalité est-ce que les banques étrangères étranger nous financer suñu économie plan capitaux

ci fruit bu ñuy jëlee bitim réew bi ma ci gëna metti nak moy banane bi c'est important bo démé Ndiandane dans le département de Podor dañ fay bay banaan bo démé Gouloumbou dans le Sénégal oriental dañ fay bay banaan bo démé dans le triangle bi nek Goudomp digënté Mangarungu Samin ak yarang balant dañu fay bay banane banane bobu ñu fay bay mu nekk banane de qualité indi won ko ci zone de consommation bi donc modeste. mais am ay gouvernement yu ciuné am ay gouvernement yo xamné sen vision weesuwul jam ñaajo moo ñu nekk ci situation yi ñu nekk kon chers compatriotes mbéjum kanam Barom mom moo koy fajal boppam xam leen ne lii defar réew mi ci seen loxo la nekk ñii fi ne mësuñu leen dig lu ñu def et tey je suis à l'aise d'en parler ci benn émission ak pap Ngagne dama ne leen Sonko jënd na glace ci français français fa génn na ci tey dégg ngeen secrétaire général gouvernement lu mu wax le franc CFA est à améliorer jënd nañ glace jënd nañ ca xam nga dafa am ay wax yoo xam ne boo koy wax ñenn ñu duñu comprendre mais man jàpp naa ne ay waxi dof la projection croissance ñaata lañ ñu wax 6 point 5 la ñu projeté croissance xam nga Sénégal kañ la weesu 6 point 5 2014 lañ ko weesu ñoom ñuy def projection de croissance di ko yóbbu de 6 point 5 ni de ñu ginnaaw la bëgg ni dañoo bëgg ñuy lekk xeer ni dañoo bëgg toroxal ni dañoo bëgg toroxal Sénégalais maintenant nak li ci dess c'est à votre niveau li ci dess moy yeen ñi nekk ci secteur informel nous avons 3 500 000 entreprises individuelles. 3 500 000 entreprises individuelles. Si nous avons un gouvernement yu smart un gouvernement intelligent Nous avons un document bi transformation L'idée des que programme de Nous avons un comme amuñu projet programme de ngi ko projet parce que liguey la bo xam dañ ko def ak ay nit ño xam ñu bëgg réew mi lañu ñu wër réew mi parcourir six cent quarante ci biir Sénégal ay équipe yu bari liguey ci liguey bu mucc ayib bu amé ñeneen ñuy rocci suñu xalaat diko jëfëndiko si c'est pour le bien du pays alhamdoulillah man xamna né bëgg nañ man xamna né Sonko bëgg na

ñu xam ne réew du ñi ci kaw ñoo koy defar réew ci suuf lañ koy defare réew boo koy defar ci suuf da ngay ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy créateur de richesse yi ñi nga xam ne ñooy créer ay entreprise ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo ay doomu aadama ñi nga xam ne ñoo am xam-xam pour def création de richesse ñooñu ngay àndandool encadrer leen pour que ñu mën a defar Sénégal yàlla xam na ne am nañu ay nit ñu am xam-xam am nañu ay nit ñu am yéene ci réew mi waaye dafa fekk ne ku ñu boolewul ci mbir ku ñu woowul ci ngénte boo fa demee boo tojee kaas di nga fay maa ngi ñaan yàlla yàlla sàmm senegal di ñaan yàlla yàlla dimbali ñu te di leen wax rek ne xam naa ne fi mu nekk nii waxoon naa leen ko moom mi jiite réew mi Ousmane Sonko dafa am ay journaliste am koy fenal oui moom Sonko dafa am ay agence de communication di ay maison de presse yu nekk ci réew moom Ousmane Sonko dafa am ay influenceurs yoo xam ne ci ñuy wax muy dox lañu bokk biir na ma ne bu subaa ku ci nekk dana ratax laalo tàmbali di wax ci Bougane mais dama bëgg ñu xam ne loolu defuma tarafatal ay plus ngeen di gën di wax ci man plus ma gën di leen a song plus ngeen di gën di fen plus may gën di génn di leeral tey jii woo ngeen réew mi cim ndaje bu ngeen ko defee bu jeexee 15 heures bu 17 heures ma woote bu ngeen ko defee 20 heures

s'il y a une intervention pertinente, s'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention, de par sa pertinence, du fait de ses analyses pointues, c'est l'intervention de Eliman Khan Bouleg Africa. Limouah, Limouah Djomay, j'espère que Djomay dina ci baye xel. Et bu ngeen setlo que wax bien kenen de Djomay la doon wax. Lam ko wax ju nit muna baye xel moy ne ay nit bo len di defal plan da ngay ànd ak ñoom déglu leen ba xam seen soxla do jël plan jël ay nit ñu karawaatu dugg ci roq génne ab plan ne plan bi moy doxal Sénégal senegal, doxal Sénégal lu ñuy manko lay doon lu doxal Sénégal lu ñuy déggoo lay doon lu doxal Sénégal lu kilifa diiné yi di ñaan lay doon li doxal Sénégal day jël en considération mag nous ñi les ñi ñi nga forces vives de la nation lañu forces vives yoyu ñu ngi pour le 17 inshallah la coalition Sam sa amenée par Pape Djibril Fall par Tierno par Anta Babacar par Le Pur par Détier... par Barthélémy Diaz Nous nga xamné mom moy suñu tête de liste gis ngeen ko fi légui ci ay liguey yu ñu c'est juste pour dire ce bloc générationnel taxaw nañu pour sortir Sénégal kon yéen waa Sénégal yéen a ci des élection yi takk leen campagne bi na wax voter massivement pour la coalition Sam sa Je vous ngi merci